parce que volonté au président dans le secteur de la santé loolu personne ne peut en douter. Mhm. Euh, parce que boo xoolee éducation ak santé ça fait presque plus de 60 pour cent du budget. quand même loolu c' est quand même colossal te infrastructure yi wax wax nga Kaffrine mais du Kaffrine kese Kaffrine. Kaffrine Kédougou Touba Sédhiou mhm. ak wër ak wër Sogui ak hôpital bi ñu wax annoncé ko tey ci conseil président fëddaliwaat na ko mu war am mu war am a euh, Tivaouane.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 mais ñëpp xam nañ def na fa liggéey ñëpp xam nañ diggante mag président amul benn jafe-jafe mais président il faut mu til mesure am daf ko dafa imposer wu mu jël ko amul amul ku mu neex ku nga xam ne yaa ngi xool engagement wu Diouf Sarr ci lépp Covid bi nu mu ko gérer santé bi nu mu ñafe yi mu ci ñafe mais ndogal yàlla bu ñëwee dal sa kaw da koy nangu boo nekkee jullit. donc li ko dal dafa bëri. président nangu ko président euh, nangu ko président nangu ko président nangu nangu ko. mais xam nga li nga wax léegi waaw lu tax moom président mu jël ki nga xam ne ci équipe bu Diouf Sarr la nekk ci foofu la nekkoon mais Diouf Sarr docteur Marie Khemesse Sène Diouf Sarr daf ko fa fekk parce que moom agent de santé la ci la bokk docteur la foofu la nekk Diouf Sarr ko fa fekk dafa mel ni nga ne football ma jël remplaçant ma dugal ko ci biir terrain nga ne lu tax jëlee woo ci tribune bi loolu ngeen di wax mais <laughs> loolu man gisuma gisuma pertinence de ce débat gis nga pertinence de parce que la politique bëri mais c'est pas forcément de comparaison juste loolu nga du changé affaire bi du changé que définition politique publique de santé c'est le président de la République définition publique politique publique de santé c'est le président de la République mu confier ko nag. lépp lépp ah, manqué. mais mais mais moo tax moo tax les politiques moo tax moo tax mu assume responsabilité mu dénk ko nit ndogal dal ko ci mu rocci ko ku ko neex. ak ku yaakaar ak ku mu confiance mu teg ko fa teg ko bët loolu mooy àddina loolu mooy démocratie loolu mooy république mais Sénégal dañoo bëgg ay débat yoon waaye ci amul kenn ku nekkoon ci équipe sociale docteur docteur Marine Marie euh, Xemes Ngom Ndiaye ci ministère de la santé la ko la ko la ko Diouf Sarr fekk. bu dee compétence te Diouf Sarr doon boo demoon tamit. débat amul ci compétence am. il a dirigé la région médicale euh, de confiance. et ensuite ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam ci li ko li ko président dénk. Ablaye ñu jàll ginnaaw yaay ministre de l'urbanisme itam euh, maanaam taax yi yow lañ ko dénk seen melokaan doo ministre assainissement waaye buñ nee nawet ne mbënd ci nga bokk euh, gis nañ taw yu ndaw yu fi xaw a euh, wadd fan yee am na fu mu foor tey ba ña seen gis nañ loraa nga yim fa indi ba faat fa benn xale sax fii ci Ndakaaru am nañu tàmbale jàqale sànq si rajo bi maa ngi dégg boori Kër Massar ak Malika waa Cité Sotrac ñu ngi jooyt nawet bi tàmbaleegul dëgg dëgg dëgg euh, li fi amoon daaw gis nañ mu metti diggante daaw ak ren lan ngeen def ci ay dogal ak i pexe yuy tax nit ñi duñu sonn ci mbënd bu taw yi foore te nee nañ ren taw yi taw yi day bëri. waaw xam nga foofu wax nga ni man duma ministre assainissement mais maag ministre assainissement yëpp. ñu ngi tirer suñu légitimité ak suñu légalité ci président bu ñu fal te mu nekk responsable euh, de la définition de la politique publique comme ni mu ko rappelé santé bi kon am nañu solidarité ci doxalin juróomi weer a ngi nii ba juróom benn président mu ngi rappelé ñu ñëpp disposition ñu war a jël pour que inondation yi fu ñu ko mënut a tere ñu atténuer les conséquences gis nga CRD yu am ci Kër Massar fu nga xam ni taala woon gis nga CRD yu bëri yu fa am sur question boobu gis nga aussi CRD yu am feneen ak feneen gis nga ministre de l'eau et de l'assainissement ci ouvrage yu ñu commencé woon président mu ne nañ leen àggali balaa nawet bi jeex balaa nawet bi ak ci ouvrage yu ñu commencé woon mu war a aju ci ADM ou bien war a adeewu ci ONAS président mu ne yooyu yëpp nañ koo jeexal balaa nawet bi dugg am ay point d'eau yu nga xam ne comme ay Kaffrine parfois mu suñu matukaay ba travaux yu nga xam ne waruñu koo def ci hivernal ba avant hivernage bi dugg yëpp ñu def ko ñu def ko en relation avec les collectivités donc instruction yëpp joxe nañ mais taw moom kenn mënul prévoir ni inondation du am loolu ku koy wax yaa ngi yaa ngi parce que euh, ay réew jël nañ seen matukaay yëpp ba mu jeex tàkk taw ñëw ravager lépp gis nga ko ci àddina du benn ba ci États-Unis d'Amérique donc li ñu mën a am rek mooy état bi lënkaloo ak collectivité territoriale parce que collectivité tamit am nañ ci rôle parce que am na yenn curage de canaux pour ndox mi mën a jàll bu ko collectivité territoriale deful minimum de sa mission lu ci ñëw nga ne ndogalu yàlla day looy day yomb moo tax ñu war a lënkaloo suñu doolee muy collectivité territoriale mooy gouvernement gouvernement ñun ñëpp la euh, wax nga ko sànq urbanisme ak assainissement soriantuwul parce que urbanisme mooy prévenir prévenir loolu bu fekkoonte ni suñu dëkkuwaay yëpp balaa ñu ci doon dëkk ñu uti ut instrument d'urbanisme yëpp ñu tegoon ko fa lu bëri danañ ko doon Euh, dañ ko doon éviter mais dafa fekk ni suñ dëkkuwaay yu bëri dafa amul ay euh, lu ñuy wax instrument comme lu ñuy wax plan directeur d' urbanisme ou plan d' urbanisme de détail et cetera et cetera. nit de canal la ñuy wax. gisuñu ay canal voilà ba plan d' hmm. loolu la ñu canal plan d' assainissement. yooyu yëpp nag planification loolu la président wax ni ci ci pàcc bi ma dénk mu def benn programme national de planification urbaine et de gestion des risques. mu ne dafa bëgg 558 collectivités locales yu nekk ci Sénégal fii ak juróom ba fukki at ñëpp nañ am instrument de base yooyu de planification parce que mënoo gérer te planifié woo. te loolu nag dina am. ah oui dañ koy outil hmm. ah président nag c' est ça le charme de travailler avec le président c'est-à-dire ko am dinañ ko am. am nañu ko tey dañoo leb bi. waaw mais mais leb ak ak ki mën a lebu. Hmm. tey yow Babacar boo demoon léegi si banque nga ne léegi léegi milliard laa soxla ak benn homme d'affaires bu nekk fële bu yore capacité du nekk benn lépp ku mën a leb bu nekk ne moo mën a leb donc nañ am satisfaction ci loolu pour ñëwaat ci mbënd bi jàpp ni responsabilité yëpp war nañoo converger euh, collectivités locales yi euh, état bi population yi. Hmm. ñëpp lëkkaloo suñu doole ba yàlla defal ñu si. Hmm. sutura ministre euh, de l'urbanisme de l'hygiène publique et ci diggante bi loolay sa sa teef ci biir gouvernement bi logement yi yaa ngi wax sànq Macky Sall nee na leen jaar fii def leen def leen laa kër yi mu waxoon nga tabax ko jox ko nit ñi gisuñu kër yi ni ngeen di dagg xol ba ngeen dagg lu fa kër amul ba léegi ñëw nga ba tey ci samay émission yàgg sa secrétaire d'État Victorine Ndeye mi nga xam ne mu ngeen tabb Ziguinchor tête de liste départementale naan ñu euh, ay euh, juin 2021 ak ñoom seen ñi ngi ci juin 2022 waaw benn caabi gisuñ ko xam nga lépp boo boo bëgg a gis nag loo gis te ba pare eh, mbir mi eh, li tubaab bi di wax Paris ne s'est pas fait en un jour dafa am ay réformes président dafa ne dafa bëgg ñu arrivé dans une période de ñu mën a produir cent mille logements mooy en moyenne vingt mille par an. a fait on a rien vu waaw déglu ma waaw déglu ma rek boo déglu da nga gis am na loo gis loo bañ a gis loo bañ a gis nag loolu loolu dinaa la ko woon tey mooy benn mu ne nañ créer nañ am vingt mille par an nañ ci ñëw mais li nga gën a bëgg mooy vingt mille yooyu boo xoolee nga comparé ko ak li amoon Sénégal cinq mille unités d' habitation lañ nekkoon cinq mille d' habitation mooy kër ak terrain. juróomi junni par at. juróomi junni lu ci loolu lañ nekkoon juróomi junni bu bëree bëree juróomi junni lañ def ci kër terrain bu ñu nii ou bien logement. yéen ngeen ne ñaar fukki junni ngeen di. par exemple nañ fa jógee. pour arriver à vingt mille par an. ñaar fukki junni. mais loolu dafa am lu ko lu koy lal. lu lu ko njëkk lal te loolu teg nga ci bët mu ñëw mu def loi sur l'habitat social mu génne loi nga xam lu ko organise habitat social bi mu def ko mu a doyul mu ne il faut que sénégalais yi boo leen bëgg jox kër sax ñu tabax te amuñu koppar mënuñoo dem banque lebu comme ni ma la waxaat sànq dina am jafe-jafe mu ne mu créer fonds pour l'habitat social mu créer benn taxe ciment mu mu mu koppar ci budget bi ñu mun a ah, nañ ko defar foofu pour mu garantir ñi nga xam ne. jaay suufu aéroport bi. 60 milliards waaw foofu. bu ñu ñëwee loolu pour que mu mën a garantir ñi nga xam ne dañoo néew di doole te projet bi mu ne dafa bëgg képp ku amul ku am revenu bu am plus de 450 000 francs par par bokk bokku ci ku am moins de 450 moo ci war a bokk mais boo fayekul 450 000 boo demee banque tey lu mu lay lebal du bëri. mu ne donc nañ créé fonds boobu mais à côté. kon de déglu ma déglu ma <laughs> déglu ma loolu la doon jàngalekat yi di ñaan mooy ñu yokk loolu moo tax réew mi yëpp war a yokk nit ñi war a gën a jàppale Macky Sall ci yokk tey lu muy yokk ci indi muy indi ci réew mi. waaye ñëw rek léegi ñëw mu ne terrain yi Babacar il faut aussi que boo joxoon ñu terrain te aménagé wuñ ko viabilisé wuñ ko aménagé wuñ ko amul ndox amul courant mu créé société boo nga xam ne loolu rek lañ ko dayoo mooy saf boobu mooy terrain yu ñu jaay aéroport mu ñu ne nañ ci jël une wàll ñu jox ko SAFRU pour mu mën a aménager fu ñu mën a dem mais boo paree yooyu ba pare mu ne nañu mu ne procédure yi dafa bëri Sénégal mun nga fi def benn bëgg a dugal benn affaire mu def ñaari ci ay ay jaar ci ay këyit dugal fii signal fii dugal fële mun nañ def guichet unique ñu lëkkaloo ak ministère des finance ak ministère yu ci lëkkaloo lépp ñu def guichet unique lépp lu nga xam ne lu jëm ci kër nga mën koo def ci ci benn bés beneen bi mu ne Babacar Fall bu buggee tabax ci biir réew mi bu buggee tamax ci biir réew mi te mbiru matériel bi cher soit du ko jëndi mu bàyyi ko ou bien mu am jafe-jafe. Hmm. mu ne nañ def yëpp tey mu pare mu nañ commencé suñu promoteur locaux yi sénégalais yi waxtaan ak ñoom ñu dugal leen ci ñu dugal ci coopérative yi mun nañ di dugal bu coopérative bi euh, promoteur yi commencé dugg lu gën a jafe fii nit mun nga am sa suuf. mais loolu du ci nguur gi boo ñëwee suuf si da koy négocier di nga daggaw xol ba barke démb parce que yendu naa ak acteurs yëpp ma toog waxtaan ak ñoom pour libérer suuf si parce que il faut aussi nga waxtaan ak ñoom il faut aussi nga déglu leen te président même bu muy jël décret boobu di dafa dagg xol ba dafa ne waaw na ñu def fa logement yi mais ñi fa dëkk dëkk yu fa nekk il faut ñu aussi prévoir seen avenir mu créer ay zone d'extension mais loolu lépp nag boo ko waxtu naa ak ñoom ñu xam ko dafa mel ni dañu ñëw bëgg pamti pamte seen suuf jox ko ñeneen alors que ci réew mi la ak intérêt ñoom ñëpp ñu ñu rafetlu projet bi bëgg ko ne ko mais nag dañoo bëgg ñu associé ñu ci lépp lu ñuy def. léegi d'accord techniquement ah, et financièrement ah, dafa di toll. loolu laa lay wax xam nga loolu laa lay wax dama ne la. Hmm. ñu teg ba pare. Hmm. ñu dem sax ba ay discuter ak ak fonds de solidarité africaine ñu d'accord ni ñu war a accompagner promoteur bu promoteur yi paree ñu gis ni suuf si mu xaw a jafe ñu waxtaan ak ñu yore suuf pour que ñu. lever équivoque yooyu mais am na balaa li am na on a signé au moins bu fekkee techniquement ngay wax quatorze conventions avec des promoteurs sénégalais. sur ci dagg xol non du dagg xol rek c'est-à-dire que sur l'ensemble du pays aussi parce que mm. équité territoriale ak sociale la ñu nekk itam. Mm. quatorze promoteurs ñu sey ngi ñoom ñii démarré nañu bëgg commencé joxe. ñuy démarré nañu joxe seen terrain mbir mi jeex léegi mu am ubbi woon aussi plateforme plateforme boobu plus de deux cent mille sénégalais inscrits ci. boo inscrire bokkul domaine ba nga bind dëkk ba nga bindoo am na ñu bindoo Kaffrine am na ñu bindoo Dakar am na bindoo Bambilor yooyu tamit dafa war a am xayma am transparence parce que président dafa ne lépp lu ñu ciy doxal nañ ci doxal transparence bu ñu ko commission boobu ci kër yu commencé pare ñu mën leen ko jox mais président dafa ne nañ ko accéléré bu ñu ko accéléré nañu ubbeeku aussi ci étranger bi parce que mënuñ ñëw rek lépp ñu ne danañ ko faj fii moo tax ci ay fan yu néew di ngeen gis li nga xam ne liggéey nañ ko ci ci Dubaï liggéey ko ci ci ci Angle ci ci Londres liggéey ko même ci Égypte pour ay partenaires yu nga xam ne bu ñu paree ak li ñu war a def ak ñoom danañ gis ni euh, dans quelques jours que euh, mbir mi. liggéey bi no xam nga. Djibouti sax moo ñu raw en terme d'habitat social. non en vérité ci jam at yi ñu wees. non non en vérité gis nga tey am na am na yeneen réew. yu ñëw di inspiré suñu modèle bu ñu jëm. mbir mi du yàkkamti mooy def lu nga xam ni c'est durable. léegi ban délai nga ñuy joxaat pour. kër yi njëkk pare nit ñi jot. non am na kër yu pare loolu moom mu ne la kër yu njëkk pare moom maintenant euh, ñu euh, ñu jox ko wala ci yeneen Bambilor am na Bambilor am na tey Kébémer am na tey Fatick am na tey Kaolack. dëru génn terrain bi euh, dañoo defagul communication communication da ngay xaar bu moment bi la neex du moment bi neex gaañ yi hmm. moment bi la neex ci ba tey booy dem Saint-Louis boo demee Kébémer am na lu fa taxaw Bambilor am na lu fa taxaw lu pare Kaolack am na lu léeg mu pare Fatick la même chose donc président veut que aussi qu'on soit dans les 46 départements du Sénégal loolu aussi et dama ne la bu ñu changé fii ak fii ak fin juin danañ gis ci réew mi lu nga xam ne lu yëngatu xam ni ni nga doon tabax dans le silence et dans le calme euh, portera ses fruits en tout cas ça fera partie d'une des révolutions que nous aurons d'ici deux xam naa décembre deux mille vingt-trois ngeen ko bëgg a génne. loolu moom euh, yow yaa ko xalaat Babacar. Abdoulaye Sow euh, maire de Fatick ministre de l'urbanisme maire